ami cheikh internet Rufisque Sénégal télévision nuyu naa leen bu baax dal leen jàmm suñu chaîne digitale seen chaîne digitale sax laay wax parce que seen moomeel la yéen ko moom euh, tey jii nag situation bu exceptionnelle bu nice la ñu amal fii nii au niveau de Diorga Chérif di poste de santé bu Diorga si la ñu nekk nii euh, xew-xew bu rëy bu fam gis ngeen askan wi si biir ni ñuy béggee ak way yi ñuy way di ko béggee di béggee ki nga xam ni euh, moo def don bi ñu mel mu doon ki nga xam ne mooy Paco di international sénégalais bi nga xam ne nekk sa Dubaï di fa évoluer tey jii moo defati mëninam ni ñu koy waxee saa ne rek moom. gannaaw ba nga xam ne ma nga foofa sa Europe sa Dubai bàyyiwul benn yoon li nga xam ne mooy Goxam terewul saa su ne mi ngi ànd ak goo xam di leen jàppale ndax bëri na ay œuvre yoo xam ne gis nañ ko fi au niveau du département moom a koy def te coow du jub kenn euh, du si fësal boppam mu doon acte bu noonu boo xam ne bëri na si jamono ji ñoo xam ne war nañ ko di koy def surtout bu la yàlla mayee loxo nga daal di nekk foofee bitim réew moom i di Pakaboy gis nañu saa su ne euh, liggéey bu rafet bi nga xam ne ka am au niveau de Rufisque tey jii nag li mu def nii doon loo xam ne lu ñu gën a soxla muy boo xoolee muy ambulance médicalisée boo xam daan na koy offrir poste de santé bu Diorga mi ngoog gis ngeen euh, ambulance bi mi ngoogu si biir gis ngeen euh, matériel yi nekk si biir gis ngeen ambulance ni mu euh, matériel ni mu xareñee ak lépp loo xam ni aju na koo xam ni soxla li nga xam ne mooy ñi nekk si biir personnel médical bi nga xam ne ñu mën a amal seen liggéey évacuer seen ñi malade si anam bu sol parce que xool poste de santé bi gis anam fi nga xam ne fa la nekkee daat nay ruxe lool donc ambulance bi nuyu au bi nga xam ne askan bi soxla nañu ko ñoo ko gisandoo gis ngeen euh, mu doon am ambulance médicalisée bu mucc ayib boo xam ni euh, daan na ko li nga xam ne mooy district mooy poste de santé bi dootuñu amati jafe-jafe si évacuer seen ay malade dootuñu amati jafe-jafe euh, si li nga xam ni euh, mooy euh, wàllum liggéey bi nga xam nañ koy amal si li nga xam ne mooy urgence yeex yooyu ndax ko gis li xam ni macha allah lu rafet la loo xam ni lu ñëpp war a magnifier lu ñëpp wala bégal lu ñëpp wala fësal pour képp koo xam ne tamit yow yaa ngi bitim réew yaa ngi déggu si lu nu mel nga jéem a roy si pakoboy ndax koo xam ne idole la koo xam ne référence la koo xam ne ku ñu war a bu baax a baax ndax liggéey bu am solo bi nga xam mi ngi koy def lii rek la ñu ngeen gis mais bëri na ay œuvre yoo xam ni moom moo koy def moom mii di international sénégalais bi di évoluer foofee sa Dubaï mooy def boobu leen liggéey euh, niveau national di jàppale askan bi di jàppale ñi nga xam ne mooy ay jege ñaaleem fàttewul benn yoon fa nga xam ne fa la bàyyeekoo ndax kat Euh, ku fàtte la fal folle ko da lay yomb waaye moom mi di Paco Boy fàttewul benn yoon li nga xam ni euh, moo ko fal ndax saa su ne euh, mi ngi fexe li mu am ak li mu amul di jàppale askanam te loolee doon nag loo xam ni daan na ko sax mën nañ ne xaar da warul du du du priorité si moom du loo xam ni c'est forcé mais da kay def ngir bonne volonté ngir li nga xam ni tamit mooy bëgg askanam ngir delloo njukkal ñi nga xam ni ba muy door ñox moom la woon ba tax na tey jii ma daa def lu

quartier bi mu nekk moom c'est le délégué de quartier muy Moustapha Niang kon moom la ñuy jox mu dalal gan yi ubbi du wax si turu délégué de quartier yëpp président Moustapha Niang vous avez parole. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ñuy njëkk ci kàddu yi alhamdulilahi rabbil alamin euh, di wax ne lii ñëw na ci waxtoom dëgg naa sànq sa kàddu nga ne euh, dañ koo oyofal mais woon du woon du woon illa bi nag parce que damay faral di wax ne lu baax bu ko nit di def xëy na moom mi koy def yàlla mënee na ko gan waaye yàlla jox na ko xol parce que joxe ci xol lay jóge yàlla ko jox na ko xol boo xamee ne li muy def yàlla rek a tax muy def waaye euh, toujours dañu faral dañu may damay wax ne nit bu defee lu baax nañ koy wax également aussi nañ koy wone parce que lii nag dafa am portée boo xamante ni war na mën a gën a yaatu lii mën nañ ko gën a yaatal ñu woo presse bu bu lu mu gën a yaatu nga xamante ni dañ ko dinañ ko gën a vulgariser parce que li ci li ci li solo si mooy kii def moom yàlla mëne na ko gan mi ngi def te yàlla tax waaye am na koo xam ne mi ngi mel ne euh, directeur mi Lamine mi yàlla yàlla may ko xéewal mu war a mën a def ne moom te bu fekkee ne gisu ko déggul day nekk ci ni mu nekkee rek donc bu fekkee ne gis na dégg xolam dina ko dina ko wala xelam yeeko ko ba moom it loolu wërsëg boobu bi ko yàlla jox muy def comme ni pako booy mii di def moo tax man bu fekkoon ne man la teeloon naa ko yëg dama leen di wax ne nañ ko yaatal woo toute la population wala tout la ville de Rufisque ñu ñu ñu ñu ñu vulgariser ko pour que ñeneen mën ci jàngee di def lu mel nii ci secteur bii wala benn bu ñu dëkk. ñuy dalal monsieur le maire Abdou Ndiaye di ko nuyu di ko sargal ak délégation bi mu àndal di nuyu euh, représentant wu ICP bi di ko dalal moom aussi également. di dalal aussi euh, di nuyu aussi ki nga xam ne moom mooy ICP bi nga xam ne moom la yàlla dogal lii tombe ci ayam di ko ñaanal yàlla yàlla na ko jik Euh, di nuyu ña bàjjenu gox yi di nuyu sama collègue délégué de quartier yi aussi di leen ñaan damay wax xam ne lii euh, wërsëgu wërsëgu grand shérif la parce que man aw ma habitude wax ay shérif noir ak shérif sud damay wax le grand shérif parce que ñun loolu dañ koo dund liggéey ko fii diggante joor ga muy shérif noir shérif sud guy ajana daa man ça c'est le grand shérif lu bari dañ ko partagé ensemble ba léegi noonu la ñuy doxee ak ñoom kon buñ fi teewee bu kenn jëlee kàddu dafay waxaaleel ñëpp ñu leen di gëral gërëm di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen yéene seen quartier ci lu baax yàlla leen ko yàlla mottali mais di beral ngërëm ñi nga xamante ni aussi ñoom moom mooy famille donateur bi euh, xëy na man miinuñu ma lool waaye man gorolaa ci kër googu ndax euh, Babacar mii nga xam ne mooy suma xarit doo moom dafa am soxna ci kër googu man mii la ko le maa ko ñaani woon ma gis ñoom ay nit ñu dal bu la neexoon nag mel ne nee na parce que gis nañ ko fi ñoo xam yàlla mën nañ leen gan ñu mel neneen mais loolu dalu leen moom yaayam ku ubbeeku la man toog naa waxtaan ak mu xamal ma ne man xanaa bon lañ doon wax ci man bu ma bonoon la ñuy wax ci man mais baax gi mooy li war ndax man yàlla dogal na bi may dugg ci néegu sëy booba aw ma dara mënuma dara bari wax na ko duma ko nettali ci micro waaye wane na ni moom wax dëgg yàlla nit ku baax la te loolu lay jëfe ba léegi ñu gis ko ci moom gis ko ci doomam gis ko ci gis ko ci njaboot gi yëpp donc Paco booy bu ñëwee dafa defati lii ah, dañuy wax na ñun alhamdulilahi rabil alamin di ko ñaanal nag di ko ñaanal wërsëgam bi nga xam ne moom la ko yàlla jox moom na ko doxale neen mais bu koy partagé loolu dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi ak kattanam yàlla na ko yàlla bàyyi ak xelam yàlla ko yàlla dolli mën-mënam parce que joxe toujours damay faral wax rek joxe ci xol lay jóge donc nit lu mu yëkkati ci ci ci alalam joxe ko rek ku nekk da koy xool sa boo xam ne lu metti la mais nag yàlla mooy mooy mooy nit jox ko wërsëg nattu la mais bu koy def fi mu ko war a def loolu sant yàlla la ñu ngi leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla taxawu yal yàlla dooli sutura yal na yàlla barkeel ak yëngatoom voilà vraiment ñi ngi au nom tout la population du du grand chérif ñi ngi ñi ngi wax ne la famille de Paco Boy jàllale leen ñu sunu sunu contentement ci Paco Boy ñu ngi koy ñaanal yàlla ne Paco Boy jërëjëf yal na ko yàlla fay lii nga xam ne moom la ko def parce que lii lii mooy li nga xam ne moo am solo defal benn nit defal ñaari nit xëy na mën na koo wax mais lii de ko def pour tout pour pour Tëngéej gi yëpp parce que Tëngéej yëpp mën nañ ci bénéficier wu kon yéen ji mu am ba def ko yàlla na yàlla fay ko lu kawe njortam ñu leen di ñaanal di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla suturaal leen waa di gërëm aussi yaayam parce que vraiment gis nañu aussi doomam bi mu ñu jox sonaluñu waaw ñu ngi koy ñaanal moom it lépp lu mu am yéene ko yàlla na barkeel dakaa duñu du ñu guddal parce que mbooloo la te bari ñu am nañ ay yitte vraiment ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm di ñaanal yàlla nag ICP bi ayam bi yàlla na ko jik waaw ah, jërëjëf Cheikhou merci beaucoup. merci pour yi rafet na te am na solo lool defe naa di rappeler mbooloo mi rek ne Maxet Diop alias Paco Boy c'est pas la première fois mu ñëw si poste de santé bi président bu ma fàttalikoo un peu si Covid bi Pape Diédhiou ñëwoon na fi indi fii loo de masque ak ay gel ak quantité bu am solo kon c'est pas la première fois muy def lii te ñun Tëngéej lañ dëkk fi lañ yaroo fi lañ màggee Paco Boy li muy def te nit ñi xamuñu ko. moo ëpp fuuf li nga xamante ne moom la nit ñi di def loolu moom ñu ngi koy seedeel mbooloom yëpp léegi nag sans dañuy jox monsieur le moom mu wax ci turu moom it nuyu le personnel bi nga xam ne ñoom laa fekk fii personnel u hôpital bi maa ngi nuyu aussi le la famille de de Paco Diop di leen sant si turu monsieur le maire maam Oumar maane ma nekk son premier adjoint au maire ma ànd ak Ndiogu Mbaye defe naa ne fii euh, du fi gan si poste bi te yaakaar naa aussi du ñu gan fii si poste bi mais d' abord li may euh, jëkk a def mooy euh, d' abord damay rendre hommage xëy na peut-être bu ma rendre hommage kooku ñu bari dañuy wax ne lu tax ndax li mu nekk sama jabar moo tax wala lan wala lan yooyu daal mais munul ñàkk foo ma rendre hommage muy ICP bi fi nekkoon muy Aminata Diop foo ma rendre hommage parce que elle a elle a servi ici parce que ku gis post bi ni mu meloon ak poste bi léegi ni mu mel eh, jar na rendre hommage ak liggéey bu mag bi nga xam ne def na ko fii mook ñi nga xam ne ñoom la fi nekkal collaborateur de déjà naa si cité Cheikh naa si cité suma suma jarbaat ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment que ñoo ko doon euh, jàppale parce que yaakaar naa ne fii poste de santé rek la woon avant que ñuy xeex ba am maternité avant ñuy xeexaat ba am salle bi nga xam ne maire bi moo ko fi defar def naa inauguré guñu ko sax yu daal eh, mooy gis ne poste de santé bi mu nekk poste de santé capital boo xam ne dafa nekk fii si Diorga Chérif mu polariser na quartier yu bëree bëri yooyu daal parce que sur les normes de l'OMS normalement poste de santé 10 000 habitants la war a polariser mais poste de santé bu dem ba polariser plus de trent 000 habitants donc vraiment ñi nekk fii donc jàmbaar la ñu donc vraiment maa ngi ñaanal soxna su Aminata maa ngi koy ñaanal et bien vrai que ne aussi ça continue la vie parce que aussi ki nga xam ne moo ko remplacé ak personnel bi nga xam ne tamit aussi ñoom fi nekk je crois que nañu basé si continuation bi pour vraiment améliorer le plateau médical bi quoi si loolu li nga xam ne moom la PACO def si améliorer le le plateau médical parce que yaakaar naa ne tey fii li fi manqué woon dëgg tey mooy mooy ambulance donc ambulance boobu bu yàlla defee doomu Tëngéej doomu Rufisque noor indi fi indi ko fii may ñu ko donc mun ñu lu ko lu dul sant yàlla et ñu fier nag aussi nag si moom parce que aussi am na ku ko wax léegi du action yii rek la mus di def yooyu quoi defe naa ne mu ngi si mu ngi si éducation mu ngi si santé mu ngi si sport te defe naa ne tey nii bu ñu waxee les moteurs du développement c'est la santé et c'est l'éducation yooyu daal parce que boo mu boo wérul mun a liggéey boo wérul aussi nga ne doo mun jàng donc vraiment xale boobu dañu koy ñaanal suñu borom bi yal na ko yàlla dolli jàmm dolli ko wér dolli ko dolli ko sutura et wax na nag tam aussi euh, euh, maquette euh, mun naa wax ne suma suma goro Moussa Moussa Faye Moussa Moussa Faye euh, su ma doom doom lay seyal dégg nga de xaritu benn bekkanam la donc vraiment encore c'est l'occasion tamit aussi parce que lu ko manqué def rek yëg na si man parce que dafay mel ni donc man la ko defal wii daal donc vraiment si côté boobu aussi maa ngi leen si santaat maa ngi leen si gërëmaat et di ko ñaanal di ñaanal aussi wayjur yi yi nga xam ne tamit aussi ñoom ñoo ko nàmpatal aussi si lii ba ñëw toog nii tamit aussi yal na yàlla may leen fan gudd ak wér ak euh, sutura di sant ci teewaay bi ngeen teew tey Alioune Ndiaye mooy seen kilifa ñoom ñëpp mooy sunu kilifa ndax tey dafa dafa dafa am fu mu dem moo tax mënu la ñëw moo tax sax ma ñëw waaye bu fi teewoon man du ma ñëw ndax ñun ñëpp moo ñu bokk ilif te lii tey bu lawee ba yegg si fii grâce à moom la ndax moo sàmm njabootam yar njabootam tette njabootam jàngal leen lu baax ba ñuy def lu baax moo tax tey man moom laay delloo njukkal ñàkk teewaayam fii moo tax tey man ma teew fi di leen gërëm yéen ñëpp nag mënoon naa jël sax tey parole bi jox ko benn collègue bu fi nekk boo xam ne mën na ko représenté muy Mbaye baabakar ndax ñoo àndoon depuis xale bay jonn yàlla tey mu ngi nii toog bu ma paree sax moom dina jël kàddu wax ndax mu tey mën na ko fee teewal moom pour mu wax waaw waaye man tey duma def lu gërëm xale yi rek di leen gërëm surtout maa ñii muy àndal su ma limee nag damay juum damay jëkkee ci Dour Sima mi nga xam ne xëñ na moo leen féete mag ñoom Malick saar ñoom Ibouka ñoom Pape Diédhiou ñoom Mbaye Ndoye ñoom ñëpp laay gërëm ndax Paka booy tey bu xelam nekkee ci lii xëñ na ñoom it seen xel mu ngi ci ñoo ko jàppale ñoo koy tette ba muy def lii muy def ndax kenn nit rek mënul xëñ na moom moo liggéey liggéey bi moo ñax ba am xaalis bi waaye xelam ak xelu ay xaritam ñoo waral lii lépp tey waa ak xeli waajuram waaw ndax du def lu ñu wax lu def loo xam ne lii waxuñu ko du mébét loo xam ne lii waxuñu ko ba laaj ñu lu si seen xalaat ñu wax wax si sunu xalaat mu doog a def kon nag Paco moom dañ koy ñaanal yàlla rek dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér ba mu mën a yokk lii muy def waaw ndax tey boo amee nekk ci réew da ngay jàppale waa réew ma waa da nga leen di jàppale jàppale bi mooy doo def individuel da ngay def loo xam ne lii ñëpp ci bokk ndax mënoo kër gu nekk nga dugg fa def lii def lii def lii du mate ñii dañ naan jox am naa ñii naan dañ naan amuma mais boo defee loo xam ne lii li ñëpp ci bokka tey ambulance bi ñëpp a ko bokk kenn ñaanul yàlla sax dugg ci nag waaye nag wér ak feebar ñoo ànd wér ak feebar ñoo ànd waaye ambulance kenn ñaanul yàlla dugg ci dañuy ñaan yàlla na taxaw fii rek ba ràpp fi te kenn ci dugg loolu la ñaan yàlla ndax kenn bëggul a dugg ci ambulance waaye nag àddina moo demee tërëdi moo demee noonu wér ak feebar ñoo ànd waaw mu jàppa ci nag te bëggul ku ko wax ndax lii lépp sax bu ko gisee du ko nangu moom bëggul kuy siiwal yëfam bëggul ku def nee moom day def buy def ngir yàlla waaw pour au presse ak pour au média yëpp mënoon nañ ko mais moom li mu mébét rek loolu lañ koy nangul waaw ñuy jox ko yàlla rek ngeen ñaanal ko yàlla rek ba yàlla sàmm ko wéral ko wéral cëram yi ba mu mën a liggéey liggéey bi muy liggéey ba ci dimbali nit ñi loolu rek lañ koy ñaanal ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñëw ma bëgg a xamal na waa Dior gi nag hôpital bi kenn moomu ko mooy li ma leen doon wax démb ma madame Faye moomu ko Assou Ndour moomu ko Aminata Diop moomu ko Seexu moomu ko ku fi nekk rek soo motalee da ngay jóg dem ambulance bi population bi moo ko moom. dafiy des man dama daan tëdd ba guddi sama doom sëfër la billaay wallaay ajim ñoom ñii ñu fen dama koy yee jógal yóbbu mu dem yóbbu su xëyee ma ne ko loo yore mu ne ah di yaa ma bi ba ñaata yoon la yóbbu malade caaroy wala nabu sukeer te dërëm du ko si yore dërëm duñ ko si fay Mouhamed kon ambulance bi bu ñëwee tey samay tànk daa mel ni man lañ ko indil maa ngi leen di gërëm di leen jaajëf yéen ñëpp. nekk bàyyi ki nga xamante ne nii mooy Maxet Diop bi ñuy waxtaanee. nga xamante ne lépp lu am moom la ak sunu yaajee di ñaan yàlla na yàlla gën a dëgëral seen taxawaay may leen wér sunu papa Alioune Ndiaye kon balaa ñuy jox euh, président Cheikhou moom la ñuy jox ndax comme fekk si nañu balaa ñuy avancer kon dañ koy jox kàddu gi mu wax papa Alioune Ndiaye vous avez la parole. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di dale ci suuf ba ca kaw. di leen xamal ne ñun benn lañu la population de Rufisque rawatina sax bu Sénégal euh, dama nekkoon ci yoon maa ngi demoon ba centre bu ñuy wax génération foot yóbbu fa équipe bu AJEL bi da nga xam ne équipe la bu Pago bokk ak ñeneen ñi taxaw nii sama ginnaaw donc entraîneur bi mu ngi nii. loolu moo tax vraiment may jéggalu si yéex a ñëw bi ci yéex a yëg si bi mais ginnaaw loolu maa ngi gërëm ñëpp jorgo dàngu daaru rahman sanc ba ba Mérina jëm HLM jokkul ñëpp penn la parce que malade hôpital ñëpp la fi nekkal hôpital bi leer na ma leeral yàlla ne am na ku jóge fu gën a sori fii ngeen di xalaat di ñëw fii di consulter wu donc c'est bien commun lu ñëpp bokk la ma di wax ne nag Paco wareefam rek la def wareefam parce que lu mu mës a la booba amul 16 yu mat 16 yu mat amu ko mu naan papa yàlla na ma yàlla may lu may dimbalee way néew doole yi di assister doomu aadama yi loolu rek lay ñaan bi mu waxee loolu yàlla tekk ci yoon bi ba mu amee la mu ñaanoon yàlla teggiwul tànkam pako dina def loo xam ne ni man du ma yëg yaayam du yëg xëy na ci jikko la ci yar la day def ba pare ci ginnaaw xaritam yi ànd ak moom si la ñuy door a yëg ne Paco jëndal na kële lii Paco évacué na kii France Paco yóbbu na kële fee jëndal na diw oto pour mu di si dimbaliku mu di ko dawal donc bu ñëwee tey def lii ah ñun njaboot gi de bettuñu bettul ay xaritam di ñaan yàlla rek yàlla dolli ñu wér ñun ñëpp parce que yaakaar naa ne yàlla li mu njëkk a santaane mooy partager maanaam séddoo loo mën a am rek li mu la jëkk a jàngal soo jën soo demee liggéey xamal ne am na gañe goo jóge soo amee 1000 francs boo ñëwee joxal sa yaay 800 jox sa papa 100 jël téye 100 séddale bi bu demee noonu ñu privilégié ku jigéen ki yaakaar naa ne ñaan ñaan ñaan day ñëw waxtu bu mu war a ñëwee te yàlla bind ko dina ñëw dama si di si profité nag di gërëm kilifa yi fi teew parce que hôpital am na ku ko yilif fi mu sampit quartier la am na ku ko yilif quartier boobu am na fu mu bokk si goxu Tëngéej am na lu passé li passé tourné nañu leen passé ba nekk ci leneen mais ñun euh, laaju ñu falu ñu dara xam nga lu ñu laaj yàlla bàyyi ñoo ñoog suñu bakken doon la ñu xiir ci boppam teg ñu ci yoonu diine ñu partagé ñuy séddoo ñuy séddoo lu nit ma am nit am na milliard te du def li ci war nit am na dërëm mu barkeel mu di si assister ñi ñi mu mën a assister mais yàlla loolu la santaane te bu soobee yàlla on va liens yi dañ koy gën a parce que hôpital vraiment te nit ñi dañuy feebar dañuy dox di feebar te war a laaj assistance Sadio Mané li mu am daf ko gaaj daf ko def ci gox bi mu dëkk kon ku ne li nga am fàttalakul fi nga dëkk ba pare nga door a wesaare mu ubbeeku te loolu mooy dëkk incha allah tant que yàlla mu ngi ñu may bakken ñuy noyyi am jàmm yaakaar naa ne ñi muy àndal dañ koy dollee xiir ci boot boobu may profité ci occasion bi di gërëm yaayam di gërëm yaayam bu baax dama koy gërëm lu bari bëri bari di gërëm magam di gërëm magam Pape Diédhiou ba toog na le moom mooy xaritu yaayam bras droit yaay ji boo bëggee laal xolam rek laalal pap wala nga wax dara ci moom pap xaritu ñii la xaritam yi maa ngi fi mbay ndoy ngi fi kee ngi fi am na ñeneen ba ba si Soumaré Gueye Soumaré sama joueur la woon xaritu Paco la lënkaloo nañu mënul dañati moom nag li mu am day ànd ñi mu nekkaloon démb fàttewul kenn te bu ko daree def sax ñun duñ si nangu na ànd ak ñi mu nekkaloon ànd ak goxam bu ñu naan wiiw nañu wax nañu wax wiiw Dar Rahman nañu wax wiiw guy àjjana nañu wax wiiw jorga ñu ubbeeku dem sanca ba dem fépp ci tëngeej mais buñ la newul wiiw sa kër kenn du la wax wiiw fenn doo am fenn wiiw ngeen baal maax xaw naa gudda tuuti mais yàlla na yàlla def jàmm. salaamaaleykum mbooloo mi nuyu naa ku ne turam ak santam jiital naa nuyoo bi monsieur le représentant du maire monsieur le représentant du médecin chef de district en la personne de monsieur Fall monsieur le représentant de l'imam de Diorga monsieur le délégué des quartiers monsieur les membres de comité de santé chers acteur communautaires, membre du personnel de Diorga, bien-aimés membre de la famille de Paco, jo Paco Boy, amis et sympathisants. maa ngi delloo njukkal euh, madame Ndiaye Aminata Diop peut-être que yàlla lool lay def fii ma taxaw nii amaana moo fi waroon taxaw parce que comme ni ko ñëpp waxee ambulance bi yàgg nañ ko di mbëbët mais lu jot rek yomb bés bi tey la ko yàlla tuddoon donc euh, ñu ngi ko ci euh, delloo njukkal donc le 2 février 2022 il y a tellement de deux ah mais c'est significatif donc chère population c'est avec un immense plaisir et une très grande joie que je m'adresse témoigner notre profonde gratitude et reconnaissance à monsieur Paco Boy et à toute sa famille pour le choix porté sur notre structure Ce jour est un jour inoubliable pour nous prestataires et pour la population de Djorga. Et l'histoire retiendra. 28 ans durant, comme Cheikh nous en 1994, bataille, le poste a fonctionné sans ambulance. Et pire encore, depuis que la maternité a, mis, a vu le jour, nous avons vécu dans le stress. Waouh, nous sommes stressés parce que nous sommes malades. Euh, malade kenn ñaanul dugg si ambulance ne ko sama yaay waxee mais dafa am pourcentage de complication du ñëppay wër wala du ñëppay développe du euh, ñàkk développé ay complication dafa am pourcentage donc en toute circonstance ñu ngi xaar ay complication complication yooyu nag day fekk nga fagaru te ambulance bokk na ci fagaru boobu donc on dit que pendant vingt-huit ans durant ñun on a vécu dans le stress Euh, dans le stress de prendre en charge des patients, des parturientes, avec risque de complications et sans moyen de pouvoir bien les conditionner quand il s'agissait de les évacuer. Ce jour vient à son heure parce que les accouchements augmentent, parce que le poste reçoit de plus en plus de malades. Nous pouvons dire que nos conditions de travail sont améliorées. Nous pouvons plus travailler dans la sérénité. et offrir des qualité de soins, contribuer à réduire la, le taux de mortalité maternelle et néonatale en réduisant le retard à la prise en charge foofu dama fi taxaw am na ñu ko wax fii yoon bi dafa metti euh, début bi oto yi dañ doon dugg si mais depuis deux ans trois ans oto yi munatul jaar fii da ngay am évacuation malaat bi accompagnant bi bala ñun ñii sax ñooy sol suñu daala dem ba Youssou Mbargaan fa kalandoo yi taxaw uti oto pour malaat bi parce que ambulance yi doyul dañuy laajte district district ne am na évacuation fii ci joor gi jalbaas rek moo fi am ambulance buñ ko woowee amaana dem na si beneen évacuation ñun ñuy xaar femme buy sañe di xaar lu ko yóbbu loolu amul fen dafa war a jeex loolu dafa war a jeex ci Sénégal te Paco Paco loolu comprendre na ko ba indi fi ambulance ambulance bi ñu ko ñëpp waxee ça ne va pas servir à Diorga seulement dina dem ci Rufisque bi yëpp waaw donc pour dire que bref c'est un ouf de soulagement c'est une vraie bouffée d'oxygène nous vous promettons que ce yo que vous avez remis entre nos mains sera bien entretenu trouvez ici monsieur Paco et votre famille l'expression de nos remerciements les plus chaleureuses. Demeurez bénis, qu'Allah le Tout-Puissant, en qui vous croyez, vous protège, vous accorde une longue vie, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Si ça ne tenait qu'à nous, dès demain, l'ambulance serait Pour vous dire qu'après ce beau geste, Et cet acte de civisme de Monsieur Boy, nous faisons un plaidoyer pour le recrutement d'un chauffeur le plus rapidement possible. Parce que vous êtes un fils digne, un exemple pour Djorga, un exemple pour le pays. jorga est très fier de toi. Merci infiniment et merci à vous tous. donc <laughs> donc vraiment yaay moom nii rek lay ñaan ci doomam xamuma ko sax waaye sopp naa ko bu ñëwee incha allah li ñu li ne suñu xol mënuñ ko exprimer euh, dem xol bi moo tooy parce que j'ai des enfants te bëgg naa vraiment dans l'éducation ñuy xool ci exemple yi lii dafa neex yàlla denk la dara nga koy séddoog ñëpp diine yëpp loolu la ñu wax diine yëpp loolu la ñu wax œuvre caritative dafa baax te loolu dalay yokk rek da koy yokk rek en tout cas euh, waxal ñu euh, Paco olof yi moom mooy lool waxal ñu Paco ne kontaan nañu suñu xol sedd na jële nañu fu sori man mii dama daan wàcce di stressé euh, logé wu ma aw ma ambulance malade bu fi nekk tànk new na wasin na si jàmm duma am jàmm yàlla xam na ko damay stressé stressé bekki parce que loolu man xaw ko bëgguma ko ku yaakaar dafa foor poste yi bëri na ku ñëw fii daal bëgg nañu mu génn fii jàmm ak salaam ak une totale ah un total rétablissement vraiment loolu lañ doon ñaan ambulance bi ñëw na sant yàlla bu wér di leen jaajëfal yaay booy jaajëf waa kay merci beaucoup. léegi nag ki ñuy jox kàddu gi mooy ki nga xamante ne moo fi représenté le médecin chef district docteur Mbaye Thiam ku wax docteur Mbaye Thiam. wax ki nga xamante ne mooy Ablaye Diouf Sarr ministre de la santé ku wax Ablaye Diouf wax la président de la république kon nañu gëm ne tey président de la république waaye muy tëdd ci lal dina xam ne Moket Diop alias Paco Boy maye na ambulance fële nga xamante ne mooy poste de santé Diorga Fall vous avez la parole. qui est retenu aujourd'hui par des activités au niveau de Mbour. Euh, heure bii dem ba ñu ngi ciy waxtaan euh, avant mu ma yebal ne ma naa dem teewal ko foofu. di yëkkati sama kàddoo di nuyu monsieur le monsieur le maire maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu délégué de quartier yi di dul nuyu képp koy notable te nga teew fi di nuyu ñi nga xam ne nag toujours bu ma yëkkatee kàddu damay ñaan ay monsieur le ma ne leen ñoom laa war a njëkkee parce que ñooy samay nit ñooy sama xarit te à chaque fois bu may wax waxu indicateur parce que man sama liggéey yëpp indicateur la mooy acteur communautaire yi ti njëkkee ci bàjjenu gox yi mënuma yëkkati kàddu te jiitaluma leen ci samay wax parce que fépp fuñ ma tuddee ñu tudd fi district bi tudd fa docteur Mbaye Thiam ñoom ñoo tax lépp loo xam ne am naa ko ci seen loxo la jóge kon maa ngi leen di dolliwaat nuyu te di leen sant comme ni ma koy defee toujours ah di nuyu personnelu poste de santé bu joor ga di ci jiital euh, sama sœur parce que vraiment bi ma fi ñëwee ba léegi sama mag la may oowe muy euh, Madeleine di nuyu tamit nekku fi waaye mënuma yëkkati parole te rendre ma ko hommage muy sama yaay sama yaayu bopp parce que ñoom ñëpp xam nañ ko heure bu ñuy wax dañ may naan sa yaay nee na ba léegi tur boobu moo fi nekk moo fi sax boo yeggee district boo laajtee kan mooy yaayu faal dañ lay ne aminta la muy sama yaay vraiment ma may ko ko jox ko ciir boobu ba moom mooy dox ci suñu diggante mu wane fi loo xam ne nag dem na ba booy dem joor ga samay waa kër bu ma leen ne dem leen dispensaire u Diorga ñu ne leen fan mooy dispensaire u Diorga il faut nga ne leen dispensaire Aminta ñu soog a xam fan la ñu jëm kon tur boobu mënatu fee jóg te def ko fee liggéey moo tax loolu nekk fi kon dañ ko koy sante di ko ko gërëmee ma nuyu nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité bi di liggéey ak seexu seexu moom vraiment toujours dañ koy beral loxo du fii joor ga rekk mais ba ci district bi seexu suñu seexu la di nuyu nag waa famille Paco di leen jox seen wàccuwaay te di leen jox suñuy yóbbante bu ngeen delloo ngeen waxal ñu Paco gis nañ li mu def dinañ ci do teg suñu loxo lu ci war dinañ ko def daf ñoo jëlee foo xam ne dinaa ci delluwaat ci kanam dañoo nekk ci situation boo xam ne au niveau du district sanitaire de Rufisque bu ñuy wax le poumon du district Diorga la boo jëlee population ga par rapport ak population euh, district sanitaire de Rufisque ga est à est estimé à 40 000 habitants. Mais dans nos statistiques, on se retrouve avec plus de 50 mille habitants par rapport à Diorga. amul benn poste de santé boo xam ne yegg na fa heure bu ma toogee ba war a présenter samay données données Diorga bu ñëwul ñemewu ma dem damay toog xaar ba keroog données Diorga di ñëw ma soog a mën a présenter te données Diorga bu njëkkee egsi ñeme naa bàyyi yeneen données yi ma dem présenter ji Rufisque ci joor ga kese pour ma wax leen joor ga ban importance la am ci biir Rufisque madame Faye a ngi koy wax léegi par rapport aux complications obstétricales téeméeri jigéen yoo jël yu ëmb wara a mucc konte nañ ci fukk ak juróom yoo xam ne mën nañu am problème ma delluwaat ci téeméeru jigéen yoo jël ñu war a mucc mën nañ ci am fukk juróom yoo xam ne dinañ am problème njoortu nañ ko te ñooñu ñëpp dañuy soxla ñu évacuer leen madame Faye amul heure bu ma oowul guddi muy deux heures du matin muy trois heures du matin muy cinq heures du matin heure bu ngeen xalaat oote na pour wër ambulance mu nekk loo xam ne wax na ko léegi mooy que ne moom ci stress la mos a dëkk lii nag nekk na loo xam ne doléance bu yàgg la yàlla tudd ko tey waa mairie à chaque fois buñ fa demee toog ak ñoom ci suñu POCT yi seen première engagement yi ñuy jël mooy que ne buñ ko amee li ñuy njëkk a def mooy ga am ambulance parce que c'est quelque chose boo xam ne mënul ñàkk ga mënul ñàkk ambulance yàlla def na ko tey ci suñu indicateurs yi yëpp joor ga moo nekkoon suñu problème yàlla dimbali nañu tey am nañu moyen boo xam ne dinañu mën a évacuer malaat joor ministère de la santé def ñoo jox ay injection joxuñu ay instruction mais daf ñoo jox ay injection benn malaat bu mu génnati ci poste de santé ñu koy yóbbu feneen te duggul ambulance mu nekk li nga xam ne moo ñu njëkk a indil problème ambulance yi nekk ci Rufisque matul une de temps bu jot yaakaar nañ ne war nañoo mën na def ñaari évacuation wala am ëpp ko ambulance su district bu départ di dem Dakar keneen a ngi xaar bu jalbaas bu jógee di dem évacuer ji keneen a ngi xaar tout temps ñu ngi ci loolu kon tey ji li mel ni bu amee yaakaar naa ne da ngeen ne dafa ñëw pour joor ga waaye dafa ñëw pour soulager Rufisque waaye dafa ñëw pour soulager ñu ñun personnel de santé yi nga xam ne tere na ñu dugal nit ci oto bu dul ambulance kon vraiment Paco du ñu def dara lu dul ñaanal ko ñaanal ko gudd fan ñaanal ko yàlla may ko wér parce que lépp xaj nañ ci yàlla may ko gudd fan may ko wér may ko wérle may ko njabootam te may ko mbéwlam jullit vraiment loolu moom ne woon naa foog ma sànni ko ci beneen bi mooy que ne nag ah ambulance bu ñëwee dafa am loo xam ne daf koo soxla ambulance dafa soxla carburant ambulance dafa soxla entretien ambulance dafa soxla chauffeur te yooyu yëpp ay dépense la monsieur le maire commencé nañu yi dañuy continuer ci yi pour wax la ne ah lii teg nañ ko suñu loxo xam ngeen difficulté yi poste de santé yi nekkee par rapport au personnel boo jëlee personnel yi nekk ci poste de santé yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent du personnel poste bi ci boppam moo koy fay mu nekk lu diis buñ ci boolewaatee yeneen dépense yi ñu boolewaat ci dépense ambulance bi day nekkaat loo xam ne lu diis la ci post yi ñu ngi leen di ñaan monsieur le maire pour lépp lu ngeen di def ni ngeen ñu doon gestoo ngeen gën ñu gestuwaat parce que gis nañu li ngeen di def yëpp mais nag du tee dinañ leen tàllal loxo ngeen gën a kii Paco nag comme niñ ko waxee fii ñun mënuñu ko ñaanaat leneen parce que lim ñu defal nii vraiment nekk na loo xam ne macha allah ñu koy gën a ñaanal rek di remercier population Diorga di leen wax ne nag poids Rufisque fii la Diorga en terme de densité population mais en terme d' sanitaire ñun xëy na yéen bu ngeen di natt ñi ci ku wér ngeen di natt mais ñun ci ay indicateur lañ koy natte indicateur yooyu yàlla def na fiñ ko yaakaaree joor gala heure bu jorga teewul ñun ñemewuñu wax dañuy noppi moo tax nag vraiment ñu ngi leen di gën a ñaan di leen sant te di nuyu ñëpp au nom di médecin chef de Rufisque loolu laa amoon lu ma ci def merci ñoo ko euh, mbokk yi ñoo ko gisandoo gannaaw ba nga xam ni kàddu yi daal dinay jukk ba nga xam ni ki nga xam ne mooy international bi di Paka Boy euh, daal di joxe li nga xam ni euh, mooy ambulance bi fii si district si poste de santé bu joor ga si teewaayu personnel bi teewaayu autorité yi teewaayu municipalité bi teewaayu ay way juróom tamit xarit ak ak àndandoo ñu ñëpp daal di teewee lu nu mel gis ngeen li nga xam ne moom la ñuy procédé si jamono ji mooy remise clé officielle à Euh, du représentant du euh, maire en présence des notables du quartier des bàjjenu gox mi ngoog euh, caabi jaa ngoog njox ko pàkku ki nga xam ne mooy bàyyi si pakk booy mu war a jébbal caabi ci ki nga xam ne mooy ICP bi di infirmier chef de poste mu ngoog muy ji jébbal caabi ji mu ngoog remise clé yaa ngoog ñu na jox caabi ki nga xam ni mooy euh, infirmier chef de poste la ñuy jox euh, caabi ji ki nga xam ne mooy papa ci Pacoboy mooy def remise euh, clé officiellement ci teewaayu ki nga xam ne tamit mooy autorité municipale et notable kaa ci ni ma koy xool sànq moom mii di Pacoboy gis ngeen ko saa su rek nii lay demee du juk mukk di jàppale askanam du tay mukk di jàppale askanam te gis ngeen kàddu ya jukkoo léegi lii rek jàngat lañ si jële euh, ko si nekk war ngaa jàngat si lu nu mel euh, ngir mën a def lu baax ngir mën a jariñ si askan ndax euh, yaay gërëm baay baay gërëm yaay loolee tamit doon na loo xam ni